chroniqueur Mamadou Ndiaye confiné chez lui en mode télétravail Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu euh, mbaa jàmm nga fanaane depuis démb euh, ñu ngi dem ak euh, télé j'allais dire téléservice mais télétravail plutôt alors de chez toi yaa ngi doon suivre ak internautes yi démb discours président et comme d'habitude à chaque fois qu'il y a quelque chose internautes yi dañ ciy def ay réaction yu jéggi dayo démb ba mm-hmm. tey nag xale yi ñu ngi réagir moo xam Twitter ou Facebook avec leurs commentaires wala euh, Pape Cheikh comme ni ñu ko waxee gannaaw bu ma la nuyuwee nuyu euh, téléspectateur yu télévision Futur Média euh, ni ñu ko waxee noonu la à chaque fois Sénégal bari na ñi nga xamante ni mën nañu wax ni ay ñu connecté lañu ndaxte bu ñu leen wàññi tolloon nañu ci 9 millions de sénégalais ñoo xamante ni dañoo nekk ñi nga xam ne ils sont connectés ci réseaux sociaux yi nag bari na ci ndaxte la trois quarts yëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi ndax ndaw ñi ñoo ci ëpp ndaxte ak seen smartphone yi moo tax démb bi moment bi nga xamante ni président ñëpp ko doon xaar ak discours am beeg nga xamante ni message bi mu doon jox euh, euh, population sénégalaise bi ci li ko waral ñun ñëpp ñu xam ko muy euh, lii di Covid 19 bi def nañ sondage un peu xool ba xam nax sénégalais yi d'accord nañ à peu près ak président li mu wax mais li ñu gis mooy li nga xamante ni mooy sénégalais yi ñu ci baree baree bare dañoo d'accord ak mesures yi nga xamante ni président de la république jël na ko donte nag ñenn ñi ñi ngi ci doon noté ñi ngi doon joxe ay seeni xalaat ci sànq li Corombaar doon wax maanaam ñëw ba xam nax mën a def li lii di euh, confinement total comme ni ngi ko gisee ci yeneen réew yi yu ci mel ay France ak yeneen dëkk yi nga xamante ne actuellement ñi ngi ci situation boobu bari na ci internet yi nga xam ne ci question yooyu la ñu ñëw mais actuellement euh, liñ mën a jàpp rek comme euh, réaction yi nga xamante ni internet yi d'accord nañ ci mooy discours président bi ñoom ñëpp dañ ko apprécier ñoom ñëpp saluer li nga xamante ne mooy discours président de la République d'ailleurs internet Sénégal yi ci bi crise bi commencé ba léegi dañoo créer benn hashtag bu ñu duppee hashtag Covid 19 ñu def ci SN scène bi mooy Sénégal euh, loolu nga xamante ne aussi euh, hashtag bi euh, gis nañ ni yu ci bëri sénégalais yu ci bëri ñu ngi koy partagé te ba ministère de la santé sax buy joxe information yi nga xamante ni da koy def da koy def au quotidien daf ci daf koy partagé ci réseaux sociaux yi boo demee ci Twitter daf koy def bari na ci aussi sénégalais yi nga xamante ne dañu utiliser hashtag bii di Covid 19 SN moom mi nga xamante ne mooy mandarga Sénégal comme yeneen dëkk yi ni koy defee ku ci nekk di joxe information yi en temps réel en tout cas à résumer ci réseaux sociaux yi seetlu nañ ni sénégalais yi yi ngi ci ci moment bii nga xamante ne ñi ngi wax ku ci nekk di rester chez vous wala rester chez toi moment boobu nekk moment bu am solo bi nga xamante ni gis nañu Sénégalais yi ñoom ñëpp a ngi connecté wu euh, ci euh, réseaux sociaux yi ngir joxe seen xalaat ci feebar bi di Covid 19. seen kër restez chez vous faites comme hmm. équipe yu euh, yeewu leen en plus de euh, loole nga suivre demb ak hashtag yeeg euh, internautes yi ni ñu doon suivre discours président jëm ci mesures yi nga xam ne jël na ko ngir xeex lii di coronavirus bi pendant que président di wax ni Sénégal jël na dogal ci ay mesures d'urgence bokk na ci couvre-feu yeneen i hmm. dëkku Afrique itam jël nañu même dogal bi démb waaw euh, yeneen dëkk Afrique jël nañu même dogal bi sax ndaxte bu ñu seetloo euh, ci sunu tund wi Mauritanie moo njëkk jël lu ni mel ndaxte euh, boo seetloo moom jeudi depuis jeudi dernier Mauritanie jël na lii di décision def couvre-feu boo xoolee léegi mat na ñetti fan. beneen dëkk bi di Côte d'Ivoire même moment même au même moment président de la République Macky Sall di def discours am président de la République di Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire moom tamit doon def même discours de la nation adressée à la nation ivoirienne moom tamit même décision yi mën nañ jàpp ni loolu la jël couvre moo fa am mais bokk heure yi bokkul ñoom à partir de vingt et une heures la ñun à partir de vingt bu ñu seetloo euh, di wax ni actuellement xeex bi mën nañ jàpp ni euh, fii ci Afrique ñëpp taxaw nañ ci ne euh, ñi ngi ci jéem a jëkk ay jéego ngir fexe génne fi feebar bi ndaxte bu ñu seetloo feebar bi bépp bi mu duggee ci Afrique ba léegi laal na lu tolloog lu ëpp ñeent fukki pays maanaam plus de quarante pays yi nga xamante ni ci tund Afrique bi feebar bi laal na leen bu ñu seetloo ñi nga xamante ni la gën a lor nag boo xoolee Afrique du Sud la Maroc Algérie nga xamante ni aussi ñoo ëpp nañu lu euh, am nañu lu ëpp ay téeméeri cas te tamit euh, bu ñu leen noté am na ci nga xamante ni dañ ci ñàkk seen bakkan di wane ni rek euh, moment bi nga xamante ni président Macky Sall mi ngi doon def discours am démb bari na ci yeneen président ku ci mel ni bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara je pense tonton mag bu kiwee sax mën nañu wane extrême tuuti rek moom tamit bi ñu doon jox ivoirien yi ngir jàkkaarloog moom tamit nation ivoirienne bi ngir jox leen yenn yi nga xamante ne ay mesures yi ñu jël ngir fexe xeex feebar bi maanaam dàq lii di Covid 19. mes chers compatriotes puisque euh, ci français la ko la ko la ko def depuis décembre 2019 euh, le monde entier voilà je pense que Mamadou Ndiaye mën nañu ko expliquer rek juste téléspectateurs yi puisque ci français la ko président bi def donc mu jël ay dogal yu am solo euh, ngir ñoom itam façon bi ñuy xeexee coronavirus bi mën nañu méngale même même dogal yi rek ak yi nga xamante moom lañ jël fii ci Sénégal loolu même même même dogal yi changement yi bariwul fexe ba di dàq li nga xam ne mooy regroupement yi dàq li nga xamante ni aussi mooy yenn euh, feebar yi nga xamante ne dañ ko fiy dàq. voilà très intéressant en tout cas toog leen mm. seen kër bu ñu leen woo leen ne sortez surtout pas euh, parce que l'heure est grave à partir de vingt heures dina am couvre-feu et euh, ba léegi euh, sénégalais yi yaa ngi di partager ay conseils ci internet bi jëm ci ñoom it ni ñuy jàppee ci xeexuk jàngoro bile di coronavirus merci Mamadou Ndiaye toog leen seen kër ñu ngi toog voilà donc ne sortez surtout pas et à demain euh, vous serez encore en mode télétravail